Euh, Madiop qu'est-ce qui s'est passé à Grand-Yoff mhm. euh, le 24 mars 2000 2024 bon lan moo lan fa xew xaw ma li xew parce que ñun en tout cas bu dee li nga xam ne moom la ñu moom la ñu war a def en tant que en tant que politique pour man def nañ ko parce que bu la falee maire te la nit ñi sant mooy nga liggéey dëkk bi grand tey ñëpp d'accord nañ ne liggéey nañ dëkk bi parce que ñun lu ñu soxaloon bi ñuy jël commune Grand Yoff waxoon naa la bi jiitu mooy defar tali bi jóge Patte d'Oie dem Camberène trottoir beneen bi mooy Grand Yoff daa benn maternité maternité bu Grand Yoff bi nekk ci côté police bi dafa yàqu woon tey ñu ngi ko def R plus 1 équipé ko am électrocardiogramme am laboratoire am am am machine échographie am lépp ci biir tey ñu ngi ñaan état bi je pense que sax il paraît que signé nañu ko fan yi pour mu nekk centre de santé pour nekk pôle mère enfant tabax nañ maternité biir biir xar yàlla tabax nañ bloc opératoire bi sañu municipal ñu ngi koy yéegal beneen niveau pour am fa centre dialyse si suuf donc li ñu waroon def def nañ ko def stade tabax stade boo xam ne dafa moderne avec la ville de Dakar def éclat bi ñu ko fekkoon 3000 points lumineux yóbbu ko tey 7000 points lumineux ëpp na ko parce que sama deuxième mandat bi am na yeneen yeneen extension yu ñu def def ay dafay aménagement école yëpp lañ defaraat ak fondation Sonatel dañ ko ajaat encore beneen niveau def ko R plus 1 donc ñun lu ñu war def def nañ ko ci côté investissement bu dee côté malade ñi feebar yaa ngi yaa ngi defar. mais mais mais lii nii argument yi mën na valable. bu ñu demee ci élection locale non attends non attends man man sama xalaat laa yaakaar. bu ñu demee man non mais ce sont des arguments qui man sama sama point de vue rek quoi man li tax grand yof laa yor beneen bi wax naa sànq info wax naa côté malade. ku dañuy def ay secours malade chaque mois de février nit ku feebar ñu yóbbu la ville Dakar ñu defal la prise en charge jàppale la xale yi war a jàng yu bëri ñu amul lu ñu fay école ñu def leen maire bi grand may leen aide scolaire ville may leen bourse bu ñu amee korité ñu dimbali nit ñi tabax ñu dimbali nit ñi man xamatuma lu desel waa grand yof am am na yu manqué yoo xam ne yëguñu ko léegi beneen bi bi gën a am solo vote bi du woon diggante population grand yof ak le maire la population nekkul woon di voter pour apprécier Euh, le bilan du la population da doon voté Khalifa Sall nekk euh, doomu doomu Grand Yoff ñoom ñu hmm. yàgg ko wóolu hmm. Khalifa Sall pour la première fois njëkkoon na bëgg mënuta antu hmm. mu metti woon waa Grand Yoff loolu je me rappelle encore de l'accueil bi ñu ko réservé lors de sa libération de prison mm mais pour la première fois Khalifa Sall am chance u daagaan baatu askan bi doomu Grand Yoff moo soxla doomu Grand Yoff boobu ñu yàgg Grand Yoff yàgg koo topp. lan moo dox ci boppu gars yi qu'est-ce qui s'est passé ba gars yi teguñ ko deuxième position sax comme Amadou Ba mais troisième position est loin derrière. 8,51 pour cent à à à Grand Yoff. là où Bassirou Diomaye Faye culmine à soixante plus de 63 pour cent. laaj ko waa Grand Yoff yi mooy mënuñ la tontu mais man te Khalifa bu dee Grand Yoff dañ koy fay li mu fa jëf. lépp lu am Grand Yoff Khalifa Sall fa def lépp laa yi ngay gis yëpp Khalifa Sall moo ko def Grand Yoff marché yi ñuy wax nii boo ko tabaxaat Khalifa Sall moo ko def Grand Yoff li ma daane lépp tabaxaat ko Khalifa Sall moo ko def Grand Yoff foyer bi ma yëkkati def ko plus 3 ku def complexe Khalifa Sall moo ko tabax Grand Yoff jox xale yu bëri bourse ñu dem jàngi embauché xale yu bëri nekk ville de Dakar daal leen pourquoi voté ñu Khalifa Sall mais Khalifa Sall li mu waroon def Grand Yoff def na ko Grand Yoff mun na am nag dañoo proposé suñu programme président Diomaye ex ex candidat coalition Diomaye président proposé programme ñu ne ko programme Diomaye moo ñu neex moom lañ tànn d'accord naa mais man su ma tëree damay nelaw. mais est syndrome bi daloon Diouf ci. ci élection législative locale 2022 yi dalu leen c'est-à-dire euh, euh, souvent dañuy daf leen di wóor ci moom bi ñu moom seen fief parce que Diouf Sarr il disait euh, yoof du problème man kay mairie Dakar laay laay xalaat mais Yoff moom su ma tëddee damay damay nelaw est-ce que syndrome boobu dalu leen ba au niveau de Grand Yoff ngeen jàpp ne Grand Yoff seen fief la quoi qu'il arrive et ngeen mettre plus l'accent Euh, ci ci yeneen localité kon nu mu baate campagne Grand Yoff weeru koor mais xalifa xalifa mii. non xam nga xalifa mii doon baatu askan xam nga xalifa war woon sax ñëw Grand Yoff di campagne Grand Yoff. mais justement. parce que doomi Grand Yoff la defal Grand Yoff bi mu nekkee ministre du commerce au temps de Diouf lépp lu am Grand Yoff yépp si voirie yi moo ko fa def même réseau d'assainissement bu bi ñu defaroon bi mu bi am tey moom moo ko def en 2000 mu am délégation spéciale Pama mu ñëw yeggale donc Khalifa est-ce que ñun ñu liggéey li ñu liggéey est-ce que li mu wax fii yëpp def naa ko biir Grand Yoff est-ce que Diouf def na ko def na ko Yoff il faut ah, il faut ñu xool voilà voilà loolu laa loolu su fekkee def na ko Yoff day jàpp ne moom Yoff moo ko moom parce que liggéey na pour man bu ñu la falee nga liggéey sama deuxième mandat na lu ma waxoon damay def pavage dans commencé naa ko fu bëri si Grand Yoff ñu ngi pafe mbedd yi dama amoon projet Grand Yoff sans sable projet Khalifa Sall la woon Dakar sans sable ma ne Grand Yoff sans ñu ne nañu fexe commencé ñu ne leen bu Khalifa bu may campagne leer laa leen wax dañu am trois problèmes yu grave am ay problème majeur may leen Khalifa Sall nekk président rek moo ko mu réglé loolu laa yaakaar man ndax moom laa faral moom laa àndal bi jiitu bi mooy problème mu assainissement Grand Yoff ndoxu foos ci day ball partout dans Grand Yoff ba ñu yaakaar ne sax liggéeyu mairie la ñëpp xam ne assainissement du compétence transférée c'est une compétence régalienne de l'État État moo ko war a defar tey boo demee Grand Yoff léegi ndox mi yaa ngi bal may leen beneen mooy le problème de Grand kër yu bëri amul kayit biir Grand Yoff acte de vente la war leen a ay titre foncier individuel parce que titre foncier donc pour man loolu tey war tax ñu fa ñu fa leen beneen bi te problème foncier bi suñu stade bi stade jàngil ba ko xamee dañ koy ñàkk am na si am benn titre foncier wu 1187 mètres carrés ci biir stade bi te foofu dafa nekkoon zone d'équipement la nekkoon comment ça nit ñu am fa titre foncier te kooku ñu nga ñu nga une carrière boo xam ne carrière bi ñu paa yu bëri yu sonn biir aslem padduwa mu mu leen ko yóbbee te carrière banque ba tey ñu ngi bind ministre ah, de de de de de l'environnement mais teewul ba léegi ba léegi dara dara avancé wul stade boobu tey nga fan bu Khalifa Sall faloo doo am titre foncier maintenant ah. waa Grand Yoff ñoo ñàkk. Grand Yoff ñoo perte mais yàlla bu ñu perte. parce que grand wooteel na président Diomaye li ma koy ñaan kay mooy na delloo grand yaf njukkal man voté lu ma ko parce que ànduma ak moom mais moo moo gañ a grand yaf donc population bi ëpp si grand yaf moom yàlla ko jig mu am bilan am résultat bu leer si li mu bëgg mais bu mu fàtte